il est zéro heure trente minutes ici à waa Akhlou Brick ñu ngi waajal tontu Ngaaka lii nag information de taille la na ngeen ko daal di téye bu baax a baax a baax Ngaaka de génn na li nga xam ne moo di kilip tuddee ko mooy borom Dakaaru ñu jàpp ni classe bi jeex na waaye waa Akhlou Brick jamono bii ñu ngi waajal beneen classe bu bees tax daal di koy génne niñ koy tuddee nag ci kanam tuuti dinaa leen jox li nga xam ne moo di information bi ak tur bi ndax fi mooy Tim Top Cas 221 lépp luy cas actualité xew ci réew mi fi lañ koy daal di traité woy leen di abonné saay su nekk bés bu nekk nit nag nee nañu ngaa ko musta gañe ak lubrique man joxe woon naa sama analyse ak sama point de vue di wax ni première classe bi ngaa ko moo gañe woon deuxième bi ak lubrique gañe troisième bi nag moo nekk nii ndax gaaka daal dinay cokkaas Akhlou Brick tuddee ko ne mooy boroom Dakaaru te lu ko neex lay def ci digg Dakaaru fi ma nekk ni nag maa ngi ci studio bi di xaar sound bi génn ma jox leen ko bu ko defee ngeen am information bi en temps réel ndax fii mooy Team Top Cas 221 mais ku ci nekk nag damay laaj jamono bii nii entre ngaaka ak Akhlou Brick kan moo téewagul geng bi kan moo jëlagul li nga xamante ne moom moo di buzz rap Galsen jamono bi ndax Ngaaka nag si defet la jóge te bi d'accord te nee du mës a d'accord ngir amaat defet ci kanamu moom moo di waa Akhlou Brick jàngeen jëf bay leen di abonné fii ci Tim cent vingt 221 lépp luy cas actualité xew ci réew mi fi lañ koy daal di traité mbokk yi jàngeen jëf